bés bi ñëwee yàlla mën ñu jàppale ba lépp jaar yoon police luñ ko waxoon luñ ko laaj mooy mu indi la mat ñetti téeméeri élément parce que daaw ñaar téeméer la indi woon léegi bu fekkee mën na ko yokk ñaar téeméeri barrière loolu lañ ko laaj pour mu gën ko yokk mais aussi pour que mu gën leen jàppale def ay patrouille yoo xam ne dañuy def guddi gi bu bu waaj ñëw ñu def ko ñu wër koñ bu ñu war a defee màggal bi maanaam daal vraiment man war ko xaw a raxas ba lépp njóobeen yi fa nekk ak ñu sant Seck ñu mën leen ko xaw a dindi foofu ñu mën fa mën fa jógee. gendarmerie ñoom it seen rôle dañ ko def mooy jàppale nit ñi yombalal nit ñi dem ak dikki bi loolu yaakaar naa gendarmerie dañ ci taxaw ci seen poste yu xam ne foofu lañ wan sapeur aussi dana fa ñëw. mooy ñoom it daf ñaan aussi ne comme événement bi am na beneen événement boo xam ne le 26 lay tàmbalee police gendarmerie sapeur croix ak euh, santé da ngeen ci jàppale bu bis bi jotee bis bi ñu ubbi ubbi tee jumaa ji ñu mën ko def vraiment ci ay conditions yu yu rafet. Senelec ñoom it lu leen laaj yaakaar naa ñoom jël nañ ko jël nañ ko en compte mooy ñu bañ a courant yi bañ a coupé foofu loolu ci gërëm solo la mooy courant yi bañ a coupé bu courant bi coupé rek yaa xam ne lépp dina mat li ci des nag mooy branchement ku bëgg a def branchement nag léegi wax nañ comité mu dafa leen benn liste ñu jox ko. comme ça ñu mën ko xool mais nag da nga ñu sóoraale aussi ne comme courant moom man na coupé man na kii da nga ñu sóoraale nga tegal fa benn groupe waxaat ne ba courant bi coupé rek ñu mën ko ñu mën ko mën ko mën ko taal mais aussi comme sóoraale ñoom aussi ñoom ñu ne kër sëñ bi dafay xaw a lëndëm ngeen mën a jël seen 50 lanterne nga man koo man ko la ndax kër sëñ bi rek bi mm-hmm. bisu màggal dafa war a leer nañ ba foo toll ñu lay booy toll ñu lay ñu lay seet foofu Euh, mairie Mbacke am na fa tuuti moom taxawaay ndax ñoo moom ñoo moom éclairage public ñoo ko moom mairie Mbacke aussi ñu ngi la ñuy ñaan nga jàppale leen jàppale ñu jàppale aussi ñëpp jàppale doomu aadama yi ba gën a yokk daal euh, éclairage bi mboolem lamp yi ñu war changé nga changé ko ay poto bu fekkee am na poto yu daanu ngeen ngeen jubbanti ko bu fekkee am na poto yu manqué rek fekkee mën ngeen ko defar xayrul bu fekkee kii ngeen xool ni mu mën a defee ba mën koo ba man koo ba mën koo changé mooy ex UCG ñoom ñu ne jëleen seen matuwaay lu doon def yaakaar naa dañ ko def am na ñetti camion benn peel ñoom dinañ ko ak euh, petit matériel ak nit ñi dinañ ko defar dina ñëw aussi participer ci euh, SACCA bu am ñaari fan ci weeru juin 2023 buñ ko bokkee ñoom ak taalibe yi ak mairie Mbacke yaakaar naa yëpp dina mën a dina mën a antu léegi na dégg naa fi maire service d'hygiène kon yaakaar naa moom li nga doon ñaan li nga doon jay joytu maire bi mu ne lépp mat na kon nag waxal sa sa sa waa ji nekk département bu Mbacké mu lëkkaloo ak maire bi lépp lu xam ne soxla na ko mu jox ko pour mu mën ko mën ko defar. ñu ngi camion yi nga am nga teel koy wax euh, préfet mën ko xam bu fekkee ñaari camion ngay am nga wax ko préfet bu fekkee benn camion yi nga am aussi nga teel ko wax préfet pour que mu mën a xool ñun lu ñu mën a def aussi ba am yeneen camion mais ñu xamal ne aussi kii xaw na la yombalal mbir mi parce que jël na benn camion aussi def ko ci. mettre à la disposition du service eaux et forêts à la disposition du comité d'organisation léegi eaux et aussi dañuy laaj comité d'organisation bi pour que ngeen def seen seen demande bi seen lettre adresse au directeur général des eaux et forêts pour que mën leen ni jàppale pour ngeen mën a am matt lu mu gën a gaawee ONAS ñoom wax na ne dañu bëgg fukki fukki camion fukki fan mais yaay xool léegi li nga am par rapport lu fa nekk nga teeloon koy wax ne ñu mën a jël sañi sañi sañi sañi disposition xool ne yow lii nga man fii nga mën a yem di des ñoom ñu xool ak euh, mairie Touba ou bien mairie Mbacké mairie Touba waa Touba ca kanam loolu la mën a jàppale pour que ñu man ko pour que ñu mën ko mën ko gën a def donc boo jëlee santé ñoom li ñu defoon daaw dañ ko gën a mooy ñeenti postes yi dana am garab dina am personnel bi dañ ko yokk ñoom yaakaar naa seen euh, seen kii aussi croix rouge aussi dana wax euh, médecin chef de région mu gën a leen jàppale indi fois croix rouge pour que lépp Sonatel aussi dañ ko wax euh, préfet dana ko wax pour mu yokk qualité service bi ñaari li ñi ngeen laaj aussi dana leen ko yeggee pour que aussi ñu mën koo teel a def commerce ak élevage ñoom seen liggéey ci la nekk bu set mooy di contrôler di saytu euh, li ñuy kii élevage dana fa ñëw saytu saytu jur jur gi commerce aussi dana dugg ci marché bu xool ndax li ñuy jaay prix yi est-ce que prix yenoon na maana mais aussi dañ xoolaale parce que yu genre événement bu mel nii ci la jaaykat yi di profito di génne les produits périmés loolu nag aussi je crois que monsieur le préfet da nga ciy si départemental bi pour que mu gën a ak service d'hygiène nga ngeen ci gën a mën da ngeen jàppale parce que ñu bëri ci heure bi li ñu profito produits yu périmés yi ci lañ koy jaay te ay doomu aadama ñoo koy jël ay doomu aadama ñoo ko nar a daje ñoom je crois war nga leen ci man a si jàppale. lool daal laa amoon vraiment di ñaan presse bi la presse pour une bonne couverture ngeen jàppale leen euh, euh, comité bi pour que vraiment fépp xam ne ni mën na fa dem fépp lu xam ne ni war nañ ko yëg ñu yëg ko ak kanaa loolu mooy essentiel bi ñu ñaan yàlla nag euh, yegg ci bis ba jàmm te lépp luñ ci seen suuf suñu borom defal ñu kawe suñu jot yàlla ñu defal ñu jàmm defal jàmm réew bi defal jàmm région bi loolu laa yaakaar naa moom xam na moom lañ amoon di ko wax sëñ bi bu fekkee am na luñ luñ tëb nag xëy na ci suñ matadi la mais yaakaar naa aussi lu ñu mujj may affaire matelas yi monsieur le préfet ko yéen yéen a ko moom ñu ne ngeen wutal leen téeméeri matelas leen soxla bu fekkee man naam nga wax la noonu la ñoom téeméeri matelas leen soxla pour pour kii xanaa seen woo aussi seen woo aussi ñu ne ñu jokkal leen ndox mi pression bi ak yombalal ni ñu xam ne dañoo bëgg compteur seen yombalal nit ñi xam ne dañoo bëgg compteur seen kër yaakaar naa loolu daal moo fu nekkoon li nga xam ne waxtaane nañ tey vraiment di gërëm les chefs de service di leen gën a ñaax ne nag euh, màggalu Daaru Salaam suñu màggal la hmm? ndax euh, bu ñu yàlla indee ci région Diourbel liggéey ci màggal dañ ci jaamu yàlla dañ ci sàkku aussi ngërëmal euh, borom màggal bi sàkku sàkku ci ngërëmal nag mooy defar ko lu xam ne lii kawe na njortam kon nag kenn ku ne daal na nga takk na nga laxasu wax ne li ngay def sa bopp nga ko defal donc euh, gouverneur danañ dajale fii rek pour que ñu waxtaan parce que gouverneur moo war a dajale mais kenn ku ne li ngay def sa bopp nga koy defal donc na xam nag euh, ñun ay naxaate ni wuñu fii waaw bu fekkee nag euh, kenn ku ne li nga wax def nga ko yaakaar naa bu ñu toogaatee di évaluation dina gën a dina gën a mën a yomb loolu nag li ñu ñaan ñëpp di wax sa bi aussi nga ñaanal ñu ba lépp lu ñu mën def yàlla may ñu vraiment kattan buñ ko mën a xel boo xam naa vraiment dañ ko mën aussi loolu am na ci solo ñaanal ñaanal moo tax daal da ngeen ñaanal jàmm daal ba ànd ak dal nga xam ne lii dañ ci mën a def laa lépp lu xam ne daal bëgg nañ ko def ci magal gi di def ci yàlla defal may ñu defal kaw si ñoom di gërëm nag yow bu baax di la ñaan vraiment nga gërëmal ñu ko comité d'organisation bi fi àndal yëpp gërëmal ma délégation bi fi àndal yëpp ñëpp gëral ma moom si sama wolore mooy sëñ sëñ Fallou Sylla waaw moom vraiment moom it sama sama wolore la yàgg nañu xamante yàgg naa koy déglu ci conférence bi def yaakaar naa ko xam sëñ Modou Mamour ko ko xam bu baax la yàgg naa dégg ay conférence mu koy def ci sëñ sëñ Modou naa dégg ay conférence mu koy def ci maam kër Cheikh xam kër ga la moo tax aussi la presse aussi moo tax aussi ah, dañu war a vraiment ñu gën a vulgariser euh, xam-xam ak euh, waxin ak euh, doxini mag ñi ndax ay royukaay la ay royukaay la ay royukaay ndax euh, jamono ji def dem na ba xam ne fi ne léegi topp sa mag dafay xaw a te loolu loolu mooy yore société kenn ku ne fekk xam nga ki li yilif nga topp ci gannaawam coow du bëri waaw loolu nag yaakaar naa ci murit fa lañ ko fekk baax mag mooy lépp waaw yaakaar naa ñu nit ñun euh, jéem a tënku ci loolu mais daal mag mooy lépp kilifa mooy lépp na nangoo am kilifa kenn ko nangoo am kilifa rek yaakaar naa lu ñu bëgg dana am donc vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la ñaanal yàlla di ñaanal di ñaanal xalifa bi di ñaanal xalifa général des Mourides di ñaanal xalifa général des Baye Fall di gërëm aussi kii ñu booleel xam ne moo nekk ci dëkk bi muy sëñ Lamp di gërëm vraiment sant bu baax taxawaayam bi biir euh, yoon bi ci taxawaayam bi ci dëkk bi yaakaar naa aussi jar ñu seddal la ko mais daal dañ euh, koy gërëm di ko sant waaw ci teraanga bëri na lool waaw vraiment teraanga bëri na lool dañ koy gërëm di ko sant wasalaam bu baax nag Mbàkke waaw jërëgën jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbooleem ñi fi teew ñëpp nee na mi ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp jiital nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi nag gouverneur mi toog ak préfet mi mu dandal ak mbooleem chef de service yi fi nekk yëpp nag yëpp loolu lépp dañ ñu koy jël ci turu sëñ Abo nee na lii muy wax nag mi ngi koy wax ci turu sëriñ Abo. ndax mooy sunu kilifa mooy sunu lépp. ndax mooy sunu kilifa tey sunu lépp. moo fi yeble itam. moo fi yeble it nag. kon nag ci turam la wax lépp lu ñuy wax kon nag ci turam la ñuy wax lépp lu ñuy wax. waaye li ñuy wax nag. waaye nag lii ñuy wax it nag. mooy ay cant rek la ñuy jottali. mooy ay cant rek lañuy ñuy jottali. Eh, ndax gouverneur. ndax gouverneur. Eh, li mu war a def def na ko. nee na li nga war a def def nga ko. ñu mu war a li muy soññee soññee na ko. li nga war a soññee it soññee nga ko. jox na màggal gi ab dayoom bu baax a baax a baax. nee na màggal gi it jox nga ko ab dayoom bu baax a baax. Eh, chef service yëpp xam nañ dégg nañ li bu baax a baax a baax. mbooleem chef de service yi fi toog xam na ne dégg nañ li nga wax bu baax a baax. ba tax na ñoo ngi am yaakaar. nee na ba tax na ñoo ngi am yaakaar. Eh, li nga ne waa comité bi wax nañ ko. li nga xam ne waa organisation wax nañ ko. sàkku nañ ko. sàkku nañ ko ci yéen. te lépp ci turu sëriñ bi moo tax moom ci turu bi lañ koy lañ koy sàkkoo. te lépp nag ci turu sëriñ Abo lañ ko sàkkoo. kon nag ñoo ngi ci am yaakaar bu baax a baax. kon ñoo ngi ci am yaakaar bu baax. da ngeen ci góor góorgóorlu seen kam kàttan. rafet na njortit ne da ngeen ci lu seen kam kàttan. waaw loolu moo tax fokk rek. mu sànni ci kàddu yi. nee na loolu ngir sant leen rek moo tax faw mu yëkkati kàddu yi. Euh, gërëm leen sant leen bu baax a baax. gërëm leen ci sant leen ci bu baax a baax. tey gërëm waa comité bi comité bi teew. ci wax ko nag ci turu waa comité bi teew yëpp. waaw ñoom it mm, seen seen bu yónneen ak li leen sëñ bi di ko wax wax nañ lépp. mu ne waa comité bi li leen sëriñ bi yónni woon te tënk ko ci aw kayit sëriñ ji li wax na lépp. leeral na lépp itam. leeral na lépp itam. kon nag ñoom ñu ngi leen di sant bu baax a baax. kon ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax. ci turu sëñ bi. ci turu sëriñ bi. waaw tey ñaan rek. tey ñaan nag. ñu fekke ko fi ay yoon yoon. ñu fekkewaat ko ay yoon yu baree bari. waaw te euh, sant ñëpp di gërëm ñëpp rek. di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp. tey soññee itam. tey soññee it nag. ci màggal gi. ci màggal gi. ci turu sëriñ bi. ci turu sëriñ bi. muy màggalu daaru salaam gi. muy màggalu daaru salaam gi. jullit jumaa gi àjjuma ji di ñëw. ak jullit jumaa ji nga xam ne mooy am àjjuma ji di ñëw. waaw sëñ bi ñu ngi koy ñu ngi koy yëgle di ko soññe bu baax a baax sëñ te di ko soññe bu baax. waaw màggal gi itam mu ngi koy soññe bu baax a baax. màggal gi nag mi ngi koy soññewaat bu baax. moom soññu ko ngir taalibé Daaru Salaam ñëpp la ko soññ nee na màggal gi nag soññi wut taalibé Daaru Salaam yi ndax ñoom xam nañ ci seen kaw la tege waaye mbooleem lislaam bépp nag ko yaakaar sëñ Tuubaa lay soññ ñëpp ñëpp la soññ ñëpp la soññ ndax Daaru Salaam ndax Daaru euh, ñëpp ñëpp ko bokk. ñëpp ko bokk. ndax ndax suñu gaawaan ni suñu gaawaan demee moo tax. ndax ni sëriñ gaawaan demee moo tax. te sëñ gaawaan ñëpp ko bëgg te sëñ gaawaan it ñëpp ko bëgg ñëpp ko fonk ñëpp ko fonk ngir sëriñ Touba ndax ni mu def sëriñ Touba ak ak ni ko sëriñ Touba def ak ni ko sëriñ Touba def kon nag ñoo ñaan rek kon ñi ngi ñaan nag ñëpp am positif ci màggal gi ñëpp am yitte ci màggal gi eh, te fonk ko te fonk ko te kenn ku ne te kenn ku ne sooy ñëw sag ñëw sooy ñëw sooy ñëw nga yéene. nga yéene. li nga bëgg lépp. li nga bëgg lépp. ak li nga bëggal sa njaboot. ak li nga bëggal sa njaboot. moom lu waay bëgg na ko ci sàkk. lu waay bëgg daal na ko ci sàkk. ndax lu ci waay sàkk dina ko am. ndax daal wóor na ma lu ci waay sàkk da ko am. loolu leer na ma bu baax a baax loolu leer na ma bu baax. waaw ñu ngi sant ñëpp nag. ñu ngi sant ñëpp nag. ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ñëw fi. ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ñëw fi. ñii di samay rakk. ñii di ay rakkam. ñii di bokki taalibe. ñii di ay bokki taalibe. ak ak sëñ bi nga xam ne bàyyi la ci noonu sëñ Ibrahima. ak sëñ Ibrahima mais nga xam ne bàyyi la ci noonu. ak ñëpp mënumaa mënumaa lim ñëpp. mënumaa lim ñëpp daal waaye ñi ànd na itam ni ko gouverneur waxee. sëriñ Lamp nag ni ko gouverneur waxee. liñ ci bëggoon a wax lépp. liñ ci bëggoon a wax lépp. wax na ko wax na ko. sant bu baax a baax a baax. dégg nañ ko bu baax baax. waaw sant nañ ñëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp. sëriñ Cheikh Anta. sëriñ Cheikh Anta it nag. ñu ngi koy ñaanal baax a ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax bu fi nekkoon ndax bu fi nekkoon kon man mii du wax man mii du ma wax kon nag nañ ko ñaanal bu baax kon nañ ko ñaanal bu baax maa ngi sant ñu gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah